maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram la maîtresse sage-femme de l'hôpital régional de Kaolack. On est i ici si màggalu Porokhane bi parce que chaque année dañ koy def hôpital Kaolack dafa am daayira si biir Eh, eh, chaque màggalu Porokhane dañuy ñëw pour couverture médicale waaw actuellement jàngoro yi ñu gën a nemmeeku fii mooy yi ñuy wax IRA maanaam saxat si ak soj bi xam nga fii dafa bëri poussière ak yooyu moo fi gën a bëri ak euh, douleur abdominale tamit am na fi ñu seen biir yi di metti ak xale yu ndaw yi constaté nañ si ñoom jaare vomissement lu ñuy wax gastro entérite xam naa changement de climat bi ak euh, poussière beeg yooyu moo ko wax jàppale si liggéey bi mooy euh, niveau national euh, ministère de la santé parce que ñoom ñooy jox dotation médicament yi bàyyi ko au niveau du district sanitaire de Nioro ñoom ñooy def kii dispatching yi antenne bu nekk bu ñëwee foofu ngay jaar ñu jox la sa dotation en médicament Euh, ak yeneen matukaay yi muy àndal nga ñëw pour liggéey àgg na parce que man hôpital def naa fa 17 ans te chaque année dañuy ñëw bi ma ñëwee hôpital ba léegi chaque année dañuy ñëw couverture te j'ai fait 17 ans à l'hôpital askan bi ñëw fii ñu leen di digtal ñu gën a respecter hygiène bi waaw parce que milieu yu mel nii euh, genre feebaru biir yi daw ak yooyu daf si bëri ñu gën a moytu respecter hygiène bi xool bu baax li ñuy lekk moytu tamit naaj bu tàng bi ndax actuellement fi xam ne ne tàng na naaj bi bu tàngee nga dox si naaj bu tàng bi ak xataay beeg yooyu mun na indi ay problème syncope yeeg yooyu noonu yëpp da koy indi nañ moytu doxu naaj bu tàng bi bàyyi ba ker bi xaw a seetlu kuy génn dem ziyaar nga dem ziyaar yi ñëwaat ah, soxna jaara moom modèle la waaw soxna jaara moom modèle la di ñaan jigéen bu nekk xam naa ne mel ne moom dina jafe mais nga jéem a roy si moom ndax lim am moom kenn moo ko am genn jigéen ju am màggal moom kenn la kon nag nag jigéen ñëpp jéem a roy si moom pour lim am ñu mun koo am waaw di jeexal di ñaan rek comme niñ koy defee nii chaque année yàlla di gën a yokk xéewal yi ñiy ñëw di ko euh, célébrer di am médicament yu doy yoo xam ne nii buñ ñëwee pèlerin yi buñ ñëwee ñun dinañ leen mën a satisfaire waaw maam bu sa jaara ay dëkkandoom nuy dina njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mam